أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رزقه على أحسن حال وجعل له سبيلين سبيل الخير والشر هو الذي أرسل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة البشر نذيرا وبشيرا وسراجا منيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك سنغال بوك جلدي نيونغي زيارة نيب دلن بيجي دلن دوكال دلن دوكال تي أتمو بيسمي di dellu di santaat yàlla bu baax di bëgga sànnente ak yéen ay kàddu kàddu yoo xam ne ndenkaante bu bàyyee ko ci borom bi jaara jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi kàddu yooyu lañ bëggoon na sànnante ak yéen te kàddu yooyu mooy lan kàddu dëgg ak kàddu gu mbaax mooy kàddu dëgg ak kàddu mbaax kon nag tey bu ko ñu defee rek dañoo ñëw ànd ak yéen ci aaxiru zamaan ci aaxiru zamaan aaxiru zamaan nag buñ ko wexee eh, nit ña ca nekk ak jikko ya ñu yor moom moo tax ñu naan aaxiru zamaan ak xew-xew ya ca ya ca yay xew bu ko defee ñu xam ni sallallahu alayhi wa sallam Euh, waxoon na ci xadiis ñu jamono dina ñëw lislaam tur rek moo fay des maanaam dañ naan jullit lañ ay jullit lañ fekk la jullit war a jikko woo wala na jullit war a comporté woo duñ ko jikko woo duñ ko comporté woo ci làmmañ bi rek lay yam kenn ku ci nekk boo ko nattee boo nattee lislaamam xeeb ko ndax ñàkk tegu ci lu yàlla bëgg ak lu yonent bi bëgg mu ne alxuraan dina dem ba mujjanteelu jamono mbind ma rekk moo fay des waaye lay tax ñu alxuraan du fa ne maanaam jëfe jëfe alxuraan ndigal yeeg tere yeeg la mu bëgg yëpp moom yàlla subhaanahu wa wax na ko ci alxuraan doo gis kenn ku koy pratiquer ni mu ware moo tax mu ni mbind ma rek moo fay des ndax sallallahu alayhi wa sallam bañ laajee sittina Aïcha euh, lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni mooy alquran soo leen bëggee xam yonent bi ni mel hmm, mu ni jàng leen alquran ba leen jàngi alquran boo leen fa gisee lépp lu yàlla digle xam leen ni sang bi def na ko ba leen gisee lépp lu yàlla tere wala mu moytandikoo loo jullit mu koy def xam ngeen ni yonent bi ko moytandiku loola lool bàyyi na loola kon nag euh, fi ñu toll nii jullit yépp lislaam bi mën nañoo wax ni yaatisaam euh, bi waroon a am amatu fi maanaam téye gi ñu ko waroon a téye amu fi dafa yolom lool moo tax mag ñi ba yonent bi sallallahu alayhi waxee ni lislaam dafa tàmbali ci tumburanke waaye dina ami doole waaye mujjanteelam tumburanke lay doon am benn mag mu daal di wax ni kon nag ilaahiya faj'al ahlana ahla gurbatin wa ahla tibaaci sunnati fi taraxumi yow yàlla comme lislaam dafa tàmbali ci tumburanke te lu mu yàgg-yàgg ci tumuranke lay mujj yow yàlla man ak sama njaboot ak képp koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah yow yàlla yàlla nga ko def ci njabootu diine njabootu lislaam bi nga xam ne dañuy way tumuranke waaw ndax sallallahu alayhi wa sallam moo wax loola te waxam du dañ te mag ñi wóolu nañ ko gëm nañu ko waaw sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis ni ki nga xam ne dafa jël ay dëgëjam ay bëñam ŋànku ko ci alquran ak sunna mu ni jamono ji nga xamante ne ni sama xel wi yépp ñoo ngi jëm ci yoonu mbewte yoonu yoonu yoon bu bon mu ni ki nga xam dafa téye diineem ŋànku ko ci ay dëgëjam mu ni kooku am na yoolu ku xare ci yoonu lislaam ba faatu ku xeex ci yoonu lislaam ba faatu ndax fii ñu toll nii layonte bi waxoon rekk moo nekk ci jamono ji nee na jamono dina toll foo xam ne diine dafay mel ni xalu sawara waaw xalu sawara boo xamante ni bëgg ga cee jariñoo waaw boo ko boo ko boo ko sànnee la nga ca bëggoon a jariñoo du am boo ko téyee tamit tàngoor wa dana la xaw a sonal mooy lan mooy diine ji boo ko sàgganee alku waaye tamit boo ko téye ni ko war a téye sonn ndax jamono fi mu toll nii bëgguñu lislaam bëgguñu diine lépp luy faagagal diine ñoo ngi cay taxaw ci bépp pexe nag ci bépp pexe nag kon nag dafa war ci ñun doomi lislaam ñu téyewaat suñu diine fonkaat suñu diine dem jàngi ko gëstu ko téye ko waaye bari na ci problème yi am ci diine li ko waral mooy ay doomi diine dañoo nangu te gëstu diine waaw te kenn ku ci nekk métier mi nga nekk di ci yëngatu fexe nga ba xam la cay baax ak la cay lore waaw kon diine rekk moom moo des ginnaaw daanaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi da ko waxoon ni amul lenn lu gën ci kaw suuf man yàlla ma jox la ko ni la téyel ma ko lu ëpp diine lu ëpp diine diine nag buñ ko waxee moom mooy jikko jikko jikko moom mooy diine waaw tey jii bu ñu doon wax ni diine ci ba baat bi ngeen pour ñu mën ko xam dafa mel ni cuub wala dafa melni oude bi nga xamne da nga dem ci mom mu xol rek daat lay copier li nga bëgg mu oude lako ko diine noonu la mel manam diine kep ku koy dund dafa wara a feeñ ci yow ci jëf ci waxin ci doxin ci xolin ci lépp way buñu xolé ci jamono ji tay ñi nga xamanteni ñom ñoy wowe seen bop ay julit ñoo gëna mëna def ñaawteef ñoo gën a mën def ñaawteef waaw li ko waral nag mooy ñàkk a xam sa bopp ak ñàkk a xam li nga doon ak ñàkk a xam li la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyil ndax yonent bi dafa waxoon ni man de maa ngi dem awma alal ju ma leen bàyyi yeel awma ay or yu ma leen bàyyi yeel bàyyiwu ma leen nag lenn lu dul ngeen jàpp alquran ak sunna waaw waaw boo leen ko jàppee doo leen sànku doo leen mës réer waaw waaw mu mel ni nag tey dem nañ ba àgg ci jamono joo xam ne alxuraan boo koy dund sax dañ lay bundu xataal yow mi koy jàngale sax dañ lay toroxal waaw la imam Malik waxoon rek mu ni ñi nga xam dañoo jàng alxuraan bu ñu respecté alxuraan respecté xam-xam mu ni mboolem lu yàlla bind daf leen ragal respecté leen waaye bu ñu demee ba jël alxuraan di jëfandikoo e, tur wa wala barke ba bañ koo jëfe nee na bu boobaa yàlla mboolem lu mu bind dafay ñime ñooñu aan ak ñooñu diine waaw kon nag nañ jëlal alxuraan màggal ko waaw buñ ko màggalee rek yàlla màggal ñu fonk ñu téyel ñu boppam واو ندخ يلا موني ومن أعرض عن ذكري واي فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي نمك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى مني كيب كو خامني داغا باي ديني داغا باي الاسلام jàpp ci leneen lu dul lislaam ak alquran ndax zikr mooy lislaam rek mooy alquran nee na bu yomal xiyaamee buñ koy dekkil dafay gumba maanaam du gumbay bët ma waaye du mën a gis yàlla du mën a am xetu àjjana du mën a am bànneexu gis yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa mu ni waaw yow yàlla lan moo tax nga dekk noo ma nekk aji gumba pour mën a gis say xéewal te nekkoon naa ci àdduna daan gis say xéewal mën ne ko hee yow kat dama laa jox lu gën ci kaw suuf xayrul kalam nga daat koy sàggane daat koy fàtte kon nag tey jii ni nga fàtte woon loolee mooy alxuraan ak diine tey jii noonu nañ lay fàtte ci biir sawara wala iyaazu billah kon mbokk yi incha allah ñu yemani nii rek ba beneen yoon